ñu gis ne euh, jamono ji mm. euh, limogeage bu euh, métti lañ fa daal di nemmeeku ba ki nga xam ne moo nekkoon prison bi di Doudou Ndir ñu gis ne daal nañ ko fay jëlee teg fi kenn koo xam ne Abdoulaye Sylla nan nga mm. jàngatee li ni ak chamboulement bi nga xam ni nemmeeku nañ ko foofu waaw li ci nekk nag mooy xam nga Doudou Ndir mm-hmm. moom dafa nekk ku retraité bu yàgg mm, njiitu réew mi teewoon ko foofu mm-hmm. li tax mu teewoon ko fa également moom moo ko xam parce que possibilité la nit ki retraité nga continuer di liggéey ak moom. Mhm. ba ci entreprise lu possible la. defal ko contrat gis nañ ko peut-être entreprise yu nekk ak yooyu am na fa. Mhm. lu mën a nekk la waaye li ci bizarre mooy euh, contexte période bi nga xamante ni ci la ko fa jëlee. xam nga Doudou Ndir dafa yàgg Sénat. Mhm. je crois bien que Macky Sall waroon naa mën a bàyyi ba mu mandaam jeex. mu ànd ak Doudou Ndir ñu ànd ñoom ñaar daal di dem retraite ñoom ñaar ñëpp. voilà wala bu ñu àndee maanaam dem retraite ci politique laax wala boog ànd quitter le système. mais ñoom ñaar ñoo bokk ñoom ñoo fi bokk nekkandoo. Mhm. boobu ba tey mi ngi ko fi bàyyi. peut-être bi mu ko fi bàyyi boobu léegi la mu fa doon def xëy na arrangé woon na ko. donc nag euh, enseignement yi mu ci mën a tiire mooy. parce que lu nekk bu xewee. Mhm. danga koy analyser ci contexte bi mu xewee. ndax euh, analyse politique moom euh, temps yi mi ngi def ci am solo ak contexte. donc bu ñu jëlee contexte bi mu ko bi mu ko limogé mooy mhm. ban contexte contexte bi nga xamante ne élection li ci des deux trois mois la effectivement mooy contexte boo xamante ne également Doudou Ndir c'est bon à travers Sénat bi nga mhm. xam ne moom la jiitee prononcé yu nañ ci différence bi am différence bi am entre euh, DG mhm. ak Ousmane Sonko effectivement ñoom seen gis-gis mooy euh, waa DGE dañu war a jël fils de parrainage yi jox ko Ousmane Sonko donc kon ci différent boobu. ñoom dañ ci jox Ousmane Sonko dëgg moom lañ ci àndal. léegi nag njiitu réew mi Macky Sall moom dafa am loo xam ne nii ci loolu la nekk. Mhm. cest à moom noo mën a mel baax na. waaye du ànd ak Ousmane Sonko rek. ci xalaat wala ci idée wala ci dara moom noonu lay noonu lay doxalee. c'est-à-dire que Macky Sall muy nit koo xamante ne. dafa am mhm. haine en réalité ci Ousmane Sonko. mën nañ koo watte duñu lakk mën nañ koo kettaabu. dafa am haine ci Sonko haine boo xamante ne. haine na boo xam ne dootul dañ. ok day xëy di gën a màgg. kon dépassé nañ adversaire politique. dépassé nañ adversaire amatul benn élégance la xew ci seen diggante. te ci biir haine boobu dafa am loo xam ne daf ci mujj dugg. mooy ban mooy lan muy dafa am crainte. haine bi crainte daf ko lal. Hmm. c'est-à-dire que ñoom il craint Ousmane Sonko. parce que xam nañ ne Ousmane Sonko moom li muy wax xam nga kañ lañ ko commencé craindre. kañ ba mu commencé tudd baatub système. moo tax Ousmane Sonko boo dee xool en réalité. Mm-hmm. Euh, du. Macky Sall moo gën a moo gën a affect féete suuf ci li ko craindre ak ci li ko haine. Hmm. voilà mais ñi koy ñi ko haine dëgg dëgg dëgg. mooy dama koy joxe exemple souvent ñi ko bañ tey ñi koy xeex. mooy classe bi doon xeex ku mel ne Mamadou Dia. parce que moom liñ ko doon xeex en fait du woon sax li ñu naan dañ koo clamé kër diine yeeg nangam nangam à l'époque Ousmane Sonko mi bëggoon nañu ko fekk amee kër diine yi. Mhm. naan ay waxabit laak ay nangam ak bu faloo salafiste laa mhm. dégg nga ay màggal dootul am ak ay gàmmu dootul am ak nangam ak i nangam ak i nangam ak i nangam. ba mu jógee ñu gis ko moom muy dem Daarul Muxti ci sëñ Abdou jébbalu fa. te murit na jéb ak jébbalu. donc ñun ñu doon ay murit xam ne ñu ko bëgg doon bokk. donc loolu tuxu dem nañ fi bi ne ay soxnaam euh, dañuy def ay ay nu ñu koy tuddee ay burka. lu mhm. wax leen lu nekk. ñu dem ba ci biir gis ko ci ndaje mu indi soxnaam gisuñu luñ doon wax ci liñ doon wax ci ay soxnaam gisuñu ko parce que dañu ne woon ay nit ñooñu la di muuru bay muur seen kanam def ay burka gisuñu burka boobu donc à chaque fois luñ ko wax liñ koy waxal yépp c'est juste rek pour parce que Sénégal dafa nekk dëkk boo xam ne ku fi bañ tarixa sonn te ñu fi bañ tarixa ñëpp a sonn parce que li tax mooy dëkk la boo xam ne tarixa dafay yàgg c'est vrai que tarixa euh, dafa ñëw juste rek pour gën a xay na pour gën a renforcer pour gën a renforcer diine ak yooyu. dëgg la ndax tarixa xam nga du lenn lu dul ab nekk ci biir kër. Mhm. boo jëlee lu mel ne murit jël lu mel ne tijaan jël lu mel ne xaadir ak laayeen yooyu yëpp dafa mel ne kër gu mag gu tudd diini léegi nag bu tudd l'islam ci biir kër googu ku nekk am ci pantere wala am ci kër kër googu bii mooy tijaan bii mooy murit bii mooy nangam mhm. ñun ñëpp ay jullit lañu waaye Ousmane Sonko tey même liñ ko doon sax ci jamono jooju waa réew mi ñu ci bare bari ci ma ko sañ a wax bu ñu nekkoon ay nit ñu ñu kii dëgg dëgg dëgg di mën a xalaat dëgg di jëli. Mhm. c'est que Sénégal li ñu war a bàyyi mooy ñu ñuy jaxaseeg nit naan gëm-gëm bii la am wala lii wala leneen. li tax amuñu problème boobu te ay saytaan dañoo ko fi bëgg indi mooy euh, président euh, Senghor. ñu fi njëkk nekk président Sénégal. Mhm. pourtant du woon jullit du woon dara te pourtant réew mi adopté woon nañ ko boo mosee wax mu ne sëñ Fallou Mbacke sama baay la. xam nga Serigne Babacar Sy nangam dafa demoon tafu ci kër gi ne yépp ba nga xamante ne daanaka wax nañ ne ñoom ñoo ko fal fal ko falati ko nangam mhm. yooyu moo fi nekk donc kon Sonko ña doon xeex Mamadou Dia pour ñëwaat ci laaj bi nga ma laaj. ba ñëw bañ koo sori. ñi ko xeex tey. Mhm. nee naa la Macky Sall moo ci gën a suufee parce que ñu doon xeex à l'époque parce que Mamadou Dia dafa toog ne. Mhm. li nga xam ne mooy structure économique surtout ci wàllu mbay ak agriculture il faut que ñu seetaat parce que mënuñu ay tool yoo xam ne ñi ko am duñu bay. ñi jot jiwu bayuñu ñi jot ay aide ak yëpp bayuñu defuñu dara. ba mhm. pare jël ko di ko àcc moo di kii pourtant loolu mu doon xeex. xëy na moom bu nekkoon président à l'époque loolu dañ fi tey mais jusqu'à présent li ñuy séddale ci ay jiw yu ci bëri bëri mhm. da ngay gis ñu ne la dëkk sàngam ka fa ëpp lu muy bay moom jotul peut-être bu ñuy séddale ay tracteur du am bu ñuy séddale ay jiw du am ak yeneen ak yeneen ak yeneen donc dafa am ñoo xamante ne classe boo xam ne mhm. ñoom ci li ñu nekk mooy toog muy dox loolu yàgg na fi depuis jamono yi Mamadou Dia waa toog muy dox nag ñoo doon xeex Mamadou Dia waa toog muy dox yooyu ñoo nekk di xeex Ousmane Sonko bu ñu ko tëjee ba damu ci caaba ji da leen di arrangé parce que système bi Sonko di wax ñoom système boobu dañu cee gis seen bopp maanaam système bii fi nekk te Sonko di ko wax ñi ci gis seen bopp ñëpp ñenn ñi ay kilifa lañu yoo xam ne ñu ngi koy xeex daleen di jaaral sax parfois teg ay malet ci taabul yi génne xaalis fay ay nit ñuy wër di saaga nit ñee ko wax pour mu bañ a tekki dara ñooñu koy xeex également daf ci bokk mm-hmm. ñoo xamante ne ba ñu juddoo ba tey mosuñoo am liggéey kenn xamul luy seen métier politique rek mooy seen métier ñooñu dañoo ngoy fi ñu ngoy ne duñu bàyyi du ñu dellu ginnaaw parce que bu ñu bàyyi Sonko nekk président peut-être ñi nga xam ne ñoom la ñuy jël nii falu ak falu par jeeg yooyu day daal di soppeeku ñi xeex également bokk na ci surtout nag ñi ci gën a mag ñi ne ca kaw au sommet mm-hmm. mooy l'Occident l'Occident boobu bu ma ko waxee France moo ci jiitu. bu Occident boo ko waxee rek. dañuy ci jëkk njëkk xalaat États-Unis ak ak France. parce que ñoom ñooy allié yi nga xam ne lu xew ci àdduna bi tey ci ay ñaawteef. Mhm. ñaar ñooñu la. nga jël li xew tey ci diggante ay Israël ak Hamas ak yooyu. ñoom ñoo ne ci mhm. nga jël par exemple li xew ci diggante Russie ak Ukraine. ñoom ñoo koy xambu ay xambukat yu mag lañu. te France boobu réew la boo xam ne tekkiwuñu dara. dégg nga ñoom ñoo nekk actuellement di xeex te ñoom ñoo doon xeex Mamadou Dia parce que bi mu toogee ba yàgg bu ne chambre de commerce bu Dakar mm-hmm. li nga xam ne moom la ñu def mooy ci suñu moomeel ameel ñu bor bu bari dañ koy fay mm-hmm. eh, ci la ñu ñoom di ko xeex bis bi ñu jëlee Mamadou Dia jàpp ko mm-hmm. waa chambre de commerce bu Dakar ña fi nekkoon à l'époque tubaab yooyu dañoo woote def ay genre fête jënd champagne bu bari maye Ndakaaru keroog dafa neex nankat yëpp dañoo kontaan mandikat yi ñëpp ñëw ñu def fête bu neex def benn banquet boo xam ne vraiment euh, kontaan nañu bis boobu ci mm. li ñu jàpp Mamadou Dia parce que xam nañ ne kii da doon seen affaire te état française ci boppam ñoom ñoo euh, ci taxawoon ci tànku ñu tegal ay ndëgg sërëx Mamadou Dia euh, daal di tegal Senghor benn plan mu exécuté ko li arrivé Mamadou Dia arrivé ko mu nekk nag loo xamante ne ñi ko fekke ñoom ñëpp war nañoo sentir coupable ci loolu mm-hmm. mais également système bu mel fi nekkoon moo fi jugul ba tey xam nga lu tax jugu fi lu tax jugu fi parce que tout simplement colonialisme moo amoon. Mhm. y avait des colons fii yu daan jàpp suñuy maam di jëng di faat di rey di def lu nekk. en réalité colons yooyu fi nekkoon juguñu fi. Mhm. colonialisme bu fi newoon jugu fi dafa am néocolonialisme juste bu am néocolonialisme boobu nag dafa am ci côté politique. parce que ñoom dañuy am seen i candidats fële Matignon di ko waxtaanee. Quai mhm. d'Orsay di xool kan la ñu bëgg mu falu di fiche doomu aadama yi. fi mu ne képp ko falu rek d' ñoom ñoom tubaab bi ñoom France baax na sauf Ousmane Sonko. parce que kooku bu falu woon tey du baax. ci seen ay système boobu muy wootee moo waral li lu ni mel parce que li tax mooy. Mhm. système boobu li ñu war a xam mooy système bi muy xeex France moo ne ci bi. Euh, am ay yu ne ci diggante bi Macky Sall nag moom mooy ki ci feeñ moom lañ ci xam. donc mooy ñi fi nekk ay président yooyu. parce que à l'époque bi ñuy rey Mamadou bi ñuy euh, fa fexeel Mamadou Dia. anti système bi France la woon mais Senghor moo feeñoon. à chaque fois anti système euh, ku ñëw bëgg koo indi ñay xeex ak yow. président bi fa nekk mu ci gën a feeñ. mais néocolonialisme bi ma lay wax. moo am ci politique parce que ñoom dañuy topp au niveau de la France def seen benn coalition def seen benn genre réunion. fiche doomu aadama yi. parce que ñoom ay nit lañ yoo xam ne au moment où nga commencé di dem ci presse ci ci média yi di wax. au moment où nga nekk ci télé wala rajo wala leneen dañuy jël sa fice fiche la tegal la benn fiche di xool li ngay wax ak li ngay def. da ngay gis koo xam ne par exemple. moom du xam pour quelle raison heure bu demandé visa France waa France bañ. Hmm. li tax mooy waa France ñoo ko fichier bu yàgg ne kii suñu noonu la bu mu dugg suñu réew. ok boo dee xeex góor jigéen yi LGBT wala yu mel noonu wala ngay xeex seen i intérêt ñoom. Mm. dañu lay fiché teg la quelque part di la surveiller foo dugg ñu bëgg koo xam am ñu lay toppalu da am na ñoo xam ne dañ dem ba egg ci degré boo xam sax dañu leen di toppalu di leen filer de de à droite te duñu bëgg nga dugg seen réew donc néocolonialisme boobu moo am ci politique parce que dañu am seen candidat ci candidat yooyu nag mhm. dañu naan ku faru baax na léegi nag euh, sauf kenn muy Ousmane Sonko mi nga xamante ne moom bu faloo du baax ci suñu ay intérêt parce que mu ñëwaat ci beneen contexte Sonko li tax ba sam gën a metti un peu bu Mamadou du mhm. c'est sa que Mamadou Dia également il a souffert xeebuma li mu li mu kii voilà mais Sonko dafa ñëw ci contexte boo xam ne gaz dafa feeñ Sénégal dégg nga pétrole am fi léegi nag mu fekk si or bi fi am. Mhm. Sénégal bu ñu defoon ndànk gis nga gaz bi ñuy wax nii ak or beeg yëpp. ak pétrole bi day romb ci suñuy loxo dem comme ni or bi rombee ci suñuy loxo dem te bénéficier yu ci ci dara. parce que Sénégal mooy dëkk boo xam ne nee nañu am na or te yow en tant que jigéen soxna Ndeya boo demoon mhm. ci bijoutier bi ne sa koñ. bëgg mu tëggal la benn chaîne en or Paris mhm. en or. wala ay bijoux wala affaire yu demee noonu. Mhm. da gis ne moom day dem di jëndaat ay chaîne. yu ñu takk ba pare di ko fondre pour mën la cee defal. waaye amul amul sax comptoir bu kii boo xam ne mën na fee nekk. pour ku soxla or mën faa dem xam fan nga koy jëndee et mhm. chaque fois da ngay dégg yi nan bu ñu mënoon a yombal suñu matière première suñu kii bi ñuy liggéey et tout. parce que tout simplement am nañu or mais or bi anamu. moo demee ay saara yaag dëkk yi nga xamante ne dégg nga fa la ñuy gasee or beeg yëpp mais dëkk yooyu ñoo gën a sonn. Mhm. nga dem ci ngajaga bi nga xam ne nii bi fi scandale amee. ci gaz bi ca la ñuy soog a xam ne gaz ndekee ñi mi ngi am ci réew mi. et pourtant dëkk yooyu boo fa demee ñoo gën donc Sonko li koy xeex. néocolonialisme euh, euh, kii lu mu tudd Occident la. ak ñeneen ñoo xam ne ñoo ne ci réew mi ñoo ci gën a suufee waaye daal néocolonialisme pour pour tënk. Mhm. dafa am ci politique ba tey jugu fi. dëgg la nañu tànnee bu njëkk seen i candidat naan Congo diw diw moo ñu gën a favorable moo ñu fay toogal Sénégal diw moo ñu gën a favorable ku mel ne Senghor moo ñu fi toogal. feneen diw moo ñu gën a favorable moo ñu fay toogal. Guinée nangam nangam nangam d'ailleurs sax Guinée boo xoolee li tax ñu gënuñ ko ci kii mooy ñoom dañoo jël seen yoonu bopp ci référendum. Mhm. daal di indépendance totale et automatique. ok Sénégal nag nekk fi dem ci ay référendum. ak voilà mais fii ci nga jàpp ne mooy seen candidat balaa dem ci leneen. waaw mais ki nekk seen candidat weesuwul euh, njiitu réew mi ki mu bëgg mu continuer. ki mu tabb xam nga lu tax. parce que kooku bu nekkee président continuité mooy am d'ailleurs sax moom kenn du ma mën a weddi ci li may wax parce que moom moo taxaw apprécier ay PSE ay affaires yu mel noonu. pour moom pour moom Amadou Ba bu ñëwee. PSE mooy meilleur plan bu ñu war a mën a continuer or PSE muy programme Sénégal émergent vous savez terme émergence terme la boo xamante ne ñoom ñoo koy wax mais les vrais économistes sax émergence terme la boo xam ne ça n'existe pas économiquement émerger mooy lan maanaam bu mbooloon laboon mhm. bu ni ay nit laboon ñu jekki-jekki gis ci kenn kuy xaw a loxo yi di def ni ñu ne ah ne am na ko émergence am na ko émergence effectivement donc kon bu fekkente ne mhm. dañoo ñun ba ñuy soog a lapax yi bay yëkkati ay loxo bay émerger émergence terme creux boo xam ne amul benn njëriñ mais est-ce que defuñu defuñu référence ci euh, en depuis 1960 euh, ba ba ñoom ñi jël li nga xam ne moom mooy nguur que le Sénégal ci maanaam position bopp la nekkoon. bon xam nga voilà peut <laughs> xam nga lii am ci ci lii moo am ci ci ci économie. Mm-hmm. soit tu es un pays développé. ok wala tu es un pays sous-développé voilà. tu es un pays sous-développé même dans les dans des pays sous-développés il y a également des sous-parties. parce que dans ce rang il y a des pays sous-développés endettés des pays sous-développés et très endettés. ok ñun ci lañ bokk. Mm-hmm. nous sommes un pays sous-développé et très endetté. un pays ou d'autres avec benn une balance commerciale tellement euh, déficitaire balance boo xamante nii ñun li ñuy jéggaani ci bitim réew di ko indi moo ëpp donc kon ñun li ñu gëm ñu ñu koy naxee naan ay émergence ay nangam jaaruñu yoon ci ku nar a développé nañu bu ñu nax suñu bopp nañu détrompé wu la Aliou Badara Cissé waxoon Macky Sall nañu yeewu qu'il qu'il se réveille avant minuit mais ñun nañu yeewu c'est-à-dire jaaruñu yoonu ci dëkk bu dem fenn regarde wax nañu ne jam période bi nga xam ne gaz feeñ na fi c'est vrai que commencé guñu l'exploitation mais dëkk boo xam ne da ngay jékki-jékki yow ku jël sa facture courant boo ko xoolee facture ba day duble wu mm. mbaa mu triplé te doo xam loolu ci lan la aju mm. dëkk boobu ñu bëgg ñoo loo ay émergence ay nangam c'est-à-dire que yokkute euh, ndeya mm-hmm. bala moo mën a am ci nit yow tey boo ñëwee 313 digital mm-hmm. yokkute bu amee